na jóg ca kaw a kaw leen di nuyu ci turul Cheikh Mouhamadou Mountakha alxalifatul am li tariqati muridi xafidahu llahu taala wa wa zaada min nasrihi wa tamkinihi di nuyu bokk Cees yépp ak bokki taalib yi di leen sant den gërëm di leen jéggulu itam ci yeexe ak si gi ndax waxtu leen joxoon tegal na lu bari ngeen toog di xaar loolu rek gàllankoori jamono ak li wa wala taqulanna li shay inni faa'ilun zalika xadan illa an insha allah kon kenn mënta doogu ci ne dinaa def nangam ci waxtu sàngam loolu ci coobare suñu borom da tàbbi kon lii ñu fi dajale kàddu yu gàtt lay doon ndax ñi ma jiitu la ma ci waroon wax lépp wax nañ ko tàmbalee ko ci suñu doon bopp sëriñ Cheikh Xaadim dégg nañu kàddu yu rafet yi mu wax yépp ak sëriñ bu Boussoum suñ Thierno moom itam kàddu yi mu fi wax li ma waroon a wax lépp ëmb na ko dégg ngeen message yi mu joxe rawatina ci monument yu siiw yooyu ñu tudd lu ci ne ñu def ko te àdduna kese tax waaye lii nag ñu def ko ngir yàlla kese kon loolu rek mooy li wuutale diggante ab jullit ak ci ki ab yéefar moo tax suñ borom ba sëriñ Tuubaa bay misaal Tuubaa bi tax suñ borom dénk ne adduna dafa wax ne moo tax yàlla suñ borom dalee na may ba dañoo xam àdduna adduna ba luñ ci xamut rek amul njariñ waaye alaaxira it da leen ump ba luñ ci xam rek amul njariñ mu yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia wa hum an alaaxirati hum xaafiroon ñoom lu ñu def rek adduna kese tax ñun nag ñu fas yéene lu ñu def rek def ko ngir yàlla ndax bu ci àdduna tàbbee rek mu yàqu moo tax wa rubbama ibadatun kathira qad afsadat lahdatun haqiira nit dana jëf jëf ju bari waaye yëg na jëf naa jëf ji rek jandiku ko rek jëf ji yàqu kon jëf lu gaaw yàqu la kon nañ góor góorlu ci pas-pas yi di ko sellal ngir xam ne nit lu mu jëf lu jël yaakaar ca ëllëgam yaakaar ci addunaam wóoru ko faye te war na ko sellal mooy la suñu kilifa gu baax ga daa wax Cheikh Mamadou Farid ne damay jël seen Touba di def ko ci roog seen roog seen mooy bëñ bi ci gannaaw nga xam ne yomb ak fa yombut kon pas-pas yi di pëstee fi nañ koy gën a dëggal te di ko sàmm loolu nag mooy lépp lu ñuy def ngir yàlla nit ñi fexe ba muy ànd ak teewlu ak yéene ju sell ndax innamal a'maalu binniyaati te nit lam jëf rek lam yéene bu fekkente ne jëf na te àndut ak yéene ju sell jëf ju du am njëriñ boobaa day mel ne julli bu fekkente ne àndut ak yéene boobaa leneen nga cee mën a amee waaye riyaada nga cee mën a jël waaye du nekk di julli jëf yëpp nag noonu la maase demee kon moo tax jàkka ji ni ma ko waxe woon rek ndax jëkku fi jàkka yi murit am na fi te yàgg na fi lool yeneen jàkka yu bari am na fi jàkka yooyu sëriñ Saliou Touré moo ko doon jiite jàkkee Cheikh Mouhamadou Mourtada mi ngi fi ak yeneen jàkkee murid yu bari ak yeneen jàkkee lislaam ndax wa na al masajida lillahi fala tad'u ma'a llahi ahadan kon bii benn ci jàkkee yooyu rek ñoo xam ne kii nga xam ne da koo tabax nag ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm ndax yéene ju sell ak yaakaar payu suñu boroom bu ëllëgee yaakaar payu suñ Tuubaa moo tax ko def kon yàlla na ko ci yàlla dajale tawfeex di jël cant gi ak ngërëm bi nag di ko tege ci loxol Serigne Cheikh Gaïndé Mbacké mi nga xam ne yàlla def na moom mi nga xam ne moom xalaat bi mu ko defee ci moom la ñëw sëriñ Cheikh Diarra ànd ak moom andi ko ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha andi ko ci man Cheikh Mouhamadou rafet lu ko nangu ko joxe ci diggal ba ginnaaw bi mu dellu si àndaat ak moom sëriñ bi ci xalaatam mu génne mu xaddamatul xidma mu xaddamatul xidma nag xam ngeen li muy firi jox leen ko ne nañ ko tuddee jumaa ji lépp di ay mandarga rafet. kon wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan ba may def alaan ba waxoon naa leen ne leen la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an fii loolu rasulullahi la ko suñ ko waxoon ci alxuraan kon ndax laa taxum fiihi abadan la masjid ussisa ala taqwa kon da ko wax ne bu taxaw ci jumaa jooju nga xam ne taxaw taxawaloon ko ta defuñ ko ngir yàlla kon kuy yëkkati néegub yàlla rek na koy def ngir yàlla jëmmi suñu borom bi nga xam ne moo di li ñu taxawal jàkk ci kaw suuf te wax naa ko keroog ne taxasu masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan bayna al mu'minin wa irsaadan lu bari la lool ci kaw suuf jàkka yoo xam ne dañ koy def te sàmmantuwuñ ci sax ne lislaam diglee ay jàkka war a taxawee noonu loolu nag ñëpp war nañ cee bàyyiwaat xel muy dellu siwaat ci li ma ubbee rek mooy nit lu muy jëf war na koy seet seet te di ko sellal bu baax a baax ndax mooy tax ëllëg di si lañ cay séen ci tuyaaba yàlla defal ko ca ndax am na fu Sëriñ Tuubaa bi ñu saaj ci am ay waxam ci ay tomb yu gudd la waaye ba ma agsee ci niyatul xëy dafa wax ne mooy dangay yéene da ngay jëf dangay ngay niyatul xëy mooy da ngay yéene mooy dafa wax ne mooy yéene yéene ji rek mooy da ngay yuutu ba fa soroxo yam te jutuloo ko loolu mooy jëf ji kat saa lay yéene biir wax la ne wutal lonk nga lonk lépp fekk seen fi nga taxaw loolu mooy niyatul xayri waaye niyatul xayri nag tekkiwul ne da ngay yéene rek te am kàttanu mën a jëf te jëfoo la nga xam ne sa doole aggu ca foofu la yéene jee tàmbulee misaal ca misaal bu gudd ci biir wax ji rek ca fa muy jeexe wax na ca ne na ngeen góorlu ci fàtt fàggandiku dund ca teer te wattandiku walaan nee na walaan nag moo di da ngay defar say saq sémbu ko ba mu fees ba ba mu fees ñëpp ko si ñëpp seen ko yaakaar dugg bu nga fa fekk jaar ko ci suuf sàq yi nekk fa jànk yi nekk fa dara nekku ca loolu wala walaa na koy def wax wax ju gudd la loolu de yàq jëf kon yàlla nañ ci yàlla musal kon sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di tàmbalee nuyoo gi nag ak cant gi ak ngërëm li ci ci nga xam ne moo fi jëwriñam di sëriñ Saliou Touré di ko ñaanal suñu borom mu dëgëral ko gàttanal ko sàmm ko ndax moom jàmbaari lislaam la jàmbaari yoonu murid la ndax boo ne lislaam sax yoonu murid tàbbi na ci biir waaye koo ko xam ku ne xam ne jundam gépp jël ko jébbal ko Sëriñ Tuubaa te disi jox dara ku fi mas a nekkee Sëriñ Tuubaa ku ne itam def na la ngay am Sëriñ Tuubaa mu liggéey la ba làq sa ngërëm kon magum lislaam na ma ko waxoon wa ma kaana allaahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kaana allaahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruun moom bokk na ci ñi nga xam ne ak teewaayam ci ko suuf suñ borom dana ci musal nit ñi dañ leen jërëma kon yàlla ko yàlla dëgëral te sàmm di teg nuyoo nuyoo bi ci loxol doomu Serigne Cheikh Touré mi nga xam ne moo ko rakkam yi mu àndal ak taalibe bi di ko yóbbanteem nuyoo ak cant ak ngërëm lu bàyyi ko ci Cheikh Maodo Mountakha di ko xam ne Serigne bi sant na ko gërëm na ko ni ko kilifaam yoo ko jëkk gërëmi woon di ko ñaanal. liggéey bi nga xam ne mi ngi koy taxaw te yéen itam ngeen ànd ko moom topp ci ginnaaw lépp it di gën a war a ni mbirum Serigne Touba ndax bi mu demee liggéey Serigne Touba ba yàlla def mu dem ba àgg ci moom nu amirhu nan ko suuf fil xalq itam yàlla def na yéen itam ngeen wuutu ko ci liggéey ba di ko taxaw ba mu mel ni ba mu fi nekk dara wàññi ko dara soppi ko ci loolu nag mooy mbirum Serigne Touba ndax kenn ku ci ne. boo génne woon kattan ga nga xam ne suñu borom defar na la ko ci yow génne mbóot ma nga xam ne suñu Tuubaa def na ko ci yow ba nga mën a jëf-jëf ja dara dootu ci desate kon suñu Tuubaa rekk fi nekk kon yéen itam ñu ngi leen di ñaan bu baax suñu borom dëgëral leen mottali seen yéen ci moom ngeen yàgg a topp taxaw ci ginnaaw di gërëm mboolem kilifay lislaam yi fi teew yëpp te buñ ci tuddee ñi bàyyi ko ca suñu mbokk yu tedd ya diwaa waa di nuyu imam jàkkee Serigne Babacar si ji nga xam ne moo fi teew te sa suñu xarit ba di suñu mbokk di suñu wëla di suñu soppi Serigne Abdoulaye Cissé Al Amine daa ko fa yónni màggalu Cheikh Bukhari bu jot mu ànd ak ay doomam ak Serigne Khalifa Lo ñu ngi koy nuyu muy imam mu Niang di ko sant di ko gërëm bu baax di fedd li kóolare gi di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko ca Thierno Bachir Tall di sëtu Cheikh Omar Fouti nga xam ne maanaam ñëpp xam nañ taxawaayam ci lislaam Sëriñ Tuubaa boo demee ci aljawharu nafis bokk na ca misaal mi ci joxe mu ne wa kaana sha'nuhu ka xawli umara man bittuxa wal ilmi qad azzara wa kun iza daxalta fi salaati ka mithli saxsin kaana fi lufaati di nuyu ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko canaba di suñu mbokk yu baax yi fi teew te nuyoo ñoom léegi dina yóbbante ca kilifa ga di ko sant moom di ko gërëm bu baax di ko ñaanal suñu borom dëgëral taxawaayam te yàggal ko ci jataay bi. di nuyu waa jamaatu xibaadu rahman sëriñ xaarim loo wax na ma léegi dama yàgg nañ fi lool ci suuf ba te ñu ngi fi ñoom itam ñu ngi leen di sant leen gërëm ndax ñoo bokk lislaam ci muñ ko seddoo te lépp lu xew ci yoonu Mbour di màggal danañ ko ànd ñun def. seen karawaan médical yooyu ñu def di ko ànd ak waa tuuba di ko tax taxawaay ba dafa ñu leen di gërëm di leen ñaan suñu borom fay leen. di nuyu Serigne Khadim Lo di ko sant moo itam di ko gërëm ci taxawaayam moo itam ni ko Fallou waxee léegi rek ndax boo duggee ci lim rek da ngay fàtte ndax dalay dallu ba te boo xasee ba juum rek. day daal di metti ndax ki nga wóor tuddoo tuddoo ko waaye nag li am solo nañ doyloo rek xam gi nga xam ne teew gi ñu fi teew te jëm yàlla tax teew gi ñu fi teew jëm Sëriñ Tuubaa tax te yoonu murit boo xasee tudd Cheikh mu Mountakha bu dee fii ci te Thiès itam boo xasee tudd Sëriñ Saliou Touré ñëpp tàbbi dañ ci biir di nuyu suñu bokk waa Njëgeen ñoom itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm moo tax maa ngi jégalu ci lim bi dawuma ko def sax ndax boo xasee lim rek da ngay juum waaye ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñi fi teew ñëpp yàlla na suñ borom jéggal leen seeni bàkkaar di nuyu nag gouverneur de la région Mouhamadou Moustapha Ndaw moom mi nga xam ne moo fi teewal euh, président Macky Sall di ko sant di ko gërëm mooy délégation bi mu àndal bépp ndax nii mu ko waxee rek suñ diggante yàgg na lool booba ñëwagul sax njaarim ca Ndar lañ xamante muy nit ku baax di jullit bu bu bu fonk diineem ku fonk lislaamam waaye ko am maslaa ci tarixa yëpp ba yàlla def ñu indi ko ñu indi ko njaareem itam mu taxaw fa taxawaay bu rafet bu mat sëkk boo xam ne dara dis jox kon ñu ngi koy ñaaral bu baax suñu borom mott l'émission defar ko ndam ak tawféex di nuyu itam sëriñ Mbàkke Fall moom sëñ Modou Moustapha Fall moom itam ñim doon ci yoon wi ñëpp xam nañ ko di ko sant di ko gërëm bu baax a baax di nuyu Ahmed Saloum Dieng bi nga xam ne moom itam suñu diggee ak moom ñëpp xam nañ ko di nuyu euh, Serigne Modou Ngom di nuyu Cheikh Tidiane Samb ak mboolem ñi fi teew ñëpp daal ñaan ku fi teew ku ne suñu borom defal la feex defal la jàmm defal la sutura jéggale say bakkaar te faj say aajo tàbbale ci istajibu lillahi wa li rasul isa daakum lima yuhyikum wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yàgg fi lool yàgg fi lool Mbàkke anta basir mutakabbir karam kitaabuhul majid laqad nafsira nafsika akaju akaju